Upstream International Building Material Company LTD di compagnie boo xam ni ña nga nekk Chine ak états waaye it am nañu warehouse maanaam salle d'exposition fii ci Ndakaaru ca cité Suprême suñu spécialité nag mooy seconde œuvre maanaam nga tabax sa kër ba noppi war a indi matériel yépp lépp loo soxla ci àdduna bi ñu indi la ko fii ci Ndakaaru yéen footballeurs yi yéen homme d'affaires yi yéen sénégalais yi nekk bitim réew te bëgg tabax ci qualité ndax nag xàmmee ngeen qualité bu baax baax dañu lay indi lépp loo xam ni moom nga bëgg yow fa nga toog ngay toog ñu yónnee la suñuy catalogue nga commandé li nga bëgg ñu defal la ko ci conteneur livrer la ko nga teg sa seconde œuvre sa kër nekk qualité dëgg dëgg dëgg moo xam carreau moo xam sanitaire moo xam luminaire moo xam jacuzzi wala ay porte blindée porte sécurité lépp loo xam ni da di seconde œuvre yéen commerçant yi tamit bu ngeen soxlaa ay ventilateur en gros dañu leen koy livrer weer wu jot am nañu conteneur yi jóge Chine ñëw Dakar suñu équipe dédiée ñoy topoto déclaration yeeg yépp yeen dal amuleen luddul ñew jël seeni bagage woo leen ci numéro yi suñu warehouse fi ci Dakar ci cité Supreme amna whatsapp ci 76 840 53 14 wala nga ñew xol li la intéressé sénégalais yi nek états-unis ak ci diaspora bi yépp mën ngeen woo Malick ci whatsapp ci numéro am ci New York 718 530 2383 wala nga dugg suñu website www.ops streamibm.com bu ngeen nekkee États-Unis mën ngeen fayee États-Unis bu ngeen nekkee Europe tamit mën ngeen a fayee Europe. ndax ma seet ko. d' accord ñu ko mu muy wuy téléphone après mu continuer li nga xamante ne loolu lay wax alors di leen fàttali ne Ahmed ma yónnee delloo la ñaata. léegi huit cent deux cent mille. ma delloo maa ngi koy xool léegi bu duggee ma delloo la ko. baax na waaw yàlla kese moo may fay suma xaalis mët na. Mm-hmm. xaaral Moustapha bi ma nekkee ci kaso bi dafa jëloon ci man un million trois cent ndeysaan moom la may fay ni mm. en direct ngeen ko am Moustapha Dramé fay na ma yéen ñi na fay. Mm. Moustapha Dramé fay na un million trois cent. léegi mu joxoon ma lim ma jox tey mu ne dafa ëpp deux cent mille mm. donc naa ko delloo deux cent mille. moom lay delloo ni en direct. mais est ko jotoon porte mais dama ko mujj baal kaso gi neexut de xarit. kaso gëlee ma jugee. waaw man moom yéenewuma ko kaso yàllaay kese. Hmm. yàllaay kese de fay na bor bi léegi nag yàllaay kese la. léegi moom musu ñàkk a nekk gaañ dafa def ma wax rek. Hmm. waaw ku bañ wax ko rek bu ko def. Hmm. mais man aw ma noonu. Mm, mm. mais fay na daal fay na ma yàlla mooy suma seede. fay na ma de. Moustapha Dramé fay na ma en direct. lii yàlla ko def mu tombé. na ko yàlla defal jàmm te xaritoo den koy sàmm. kóllëre dañ koy sàmm mais nit ku nekk ci jafe-jafe nga mën a lekk un million trois cent toog du jëf ju baax waaw moom moom waxtaan wax dëgg ca la waaye nga ameel nit ki xaalis euh, mu def ndànk ba yow nga reconnaître pour fay ko yonentu dafa waxoon ci xaddis mu ne day leen fay bor ci moment yu difficile te jamono bii moom korité gi ko am responsabilité soxla nga xaalis yàlla na ko yàlla fay du saafeer du saafeer du saafeer du saafeer du saafeer xanaa sa cabine ak tamit. waaw ah coono ngeen di liggéey ma léegi seetlu leen ma luy génne xaalis boo ah, ma waaw li bu ñëwaatee un peu si si hmm, daf di yëfi jullit Mame Makhtar li ma la waxoon nga gis ku juddoo kër ndeyam ak bàyyam ba màgg def jëf mais den naan ana mbokk yi déedéet den naan ana nguur gi déedéet den naan ana kilifa diine naan ana jamra loolu rek war la tax na nit ku baax la en plus man gëw ma ne Mame Makhtar Gueye moo ma tëj finalement gëwma loolu li ma gëm mooy ci suma passage vie la bokk yàlla am cër bu ma jox mais njëg mooy kaso ma dugg fa génn ak mbégte génn ak gëm yàlla bu yokk am gest buñ ko doon eggale ci moom ngir wax ko jërëjëf te ñu ñëw ngir matal loolu ziare ko ci weeru koor bi ah, euh, ndokkele si ko ci weeru koor bi àq nag dafa sew peut-être moom ci waxam amel na ma ko peut-être man amel na ko ñu baalante fii ci àddina dafa gën ñu egg yomal xiyam ndax foofu coon sekk noonu na amul ma gis la une minute amul intervention ñëpp a soxla ak te bëgguma tëddale suma bàmmeel fekk maam Maxtar mu ngi ma ameel ak bëgguma it moom mu tëdd ci bàmmeel fekk mu ngi ma ameel ak donc baalante mais baaluwante avec grandeur su ko passé la muy liggéey ci askan wi moom matul am na ci lu ma gëm ne dafa manqué am na ci lu ma gëm ne doxul te man mën naa ci dara man it matuma li ma nekkee ci askan wi am na lu ñaaw am na lu nit ñi ñaawlu am na lu ñaaw am na lu ñu ñaaw la jëm koo soppi su boobaa lu rafet la te lu baax lay doon loolu moo fi indi keneen dootul. mais mais pare nga genre pour euh, bu démb noonu tey ndax di nga def wala di nga wax li nga doon wax. non comme démb la rek dañuy bàyyi démb ñëw ci lu rafet tey waaw suñ nettaliwaatee démb day yàq taaru teew bi. comprendre nga mm. suñ ne moo noon ñu ne ñu ne day yaq li taru ni te li rafet ni fa leen wara commencer jëmat ci kanam ba bis bu nak su boba waxtaan mëna ah Cheikh Ahmed dembu dee ya non mais pour l'instant ni encouragement la soxla rafetlu la soxla ñu tok nak courage les bras xool fu waneentu du mujjé ki gëteum pour man lool moy l'essentiel mm. mais mom su ñëwé ci lama ko waxon ak lama def ba ñëw ci lama wax lima def kon amul solo ma ñëw fi te sante moom mu nga neexee taal sa téléphone di wax lu la neex hmm? leeradil fa la daaxee kenn du la laaj yaay wax ba géex loolu laa gis na daal moo gën su man suma làmmiñ dama ko licence su may wax du ma desal te mën naa wax lu yàq suma teewaay tey bi waaw wax su demee ba war a gaañ rek noppi day doon farat mais da nga da ngay adhéré ci mouvement naa bu yàgg jënd nga carte tey laa koy jënd officiellement mais nag boo jëndee carte dafa am euh, règlement intérieur bu nekk si biir est-ce que di nga ko mën a respecter yow ak sa communication rek. règlement boobu l'islam a ko gën l'islam a ko ëpp doole te musuma communiquer nu ma génnee ci l'islam te lu ma génnewut ci l'islam warul ma génnee jàmm la hmm. non su ma wax musuma wax lu ma génnee ci ji. interprétation dañ ci wuute gis-gis quoi. waaw yow respecté naa la loolu mais l'islam dafa leer te du lëndëm dafa mët te du manqué. dama ne man communication buma ma génnewul ci diine warul ma meuna a ci ONG buy dimbalé diine amu problème de communication musuma wax lu bon mais sa fani dañ koy tuumaal ne dafa kan Kaliphone wax na dëgg wax na kii di yuuxu ay mag dama lay ki wax na dëgg ñun ñep dof len ça dépend ci suñu niveau dof mom niveau dofam fa la dafa dess si sa interprétation rek mais niveau dofam mu ngi tollu ci tabakh kër baye niveau dofam mu ngi tollu ci wàllu kenn niveau dafa mu ngi toll ci bi ko yàlla indiwaatee réew mu utiliser loolu ba mën a def loo xam ne am nañu juddoo ci réew mu suñu dem France mais tabaxuñ seen kër bàyyi toujours ñu ngi laaj seen droit fa la niveau dafu Khaliphone Sall toll. mais ñu ko gis muy attaqué ma Matar keroog la dernière fois ko invité sans limite gis mu koy attaqué te yow xaritam xarit nag moom mënu ngeen nekk xarit ba sa biir bi di daw nga demal ko toilette donc moom da koy respecté prince am ak definam ak doxalinam li ma xam dal moy su neexee te yalla bu mu xarit kalifon suma xarit la loolu moom xam na ko waaye lamuy ak kumuy ak famuy loolu moma foog nga respectel ko ngir xarito gi dem. da delu wat ci jàppale président Macky Sall parce que kalifon set si na la di waxtaan ak yow. pour nga man est-ce que bàyyiwuma politique parce que arrangé wu ma. Ah, mais intérêt nga te buñ la woowee proposer la tamit. mooy loolu xam nga tay suma intérêt bi gëna a mag mooy mbëggeel bi ma nit ñi bëgg te tay amna ñu bëgg président bo soko ko ñu bala am ñu bëgg sonk ba soko xasse ñu bala te yow nit ñi ñoy sa intérêt donc tu as l'intérêt garder lolu garder sa dignité garder sa intégrité te politique lu ma mëna may rek ba dama ko xaj dama fokk né dal wax lu ñëwagul nak wuur mais pour l'instant fi ma taxaw ni Macky Sall ni Sonko ni politique dara ñoruma ci suma démé bay wax sa lu arranger askan bi lay wax adhéré wu ci côté askan bi bayé len ñom sen politique ndax kenn ku ci nekk yaangi sol dalu 300000 te man dàll yi ma sol den ma koo may kenn ku ci nekk yaa ngi dawal oto plus de cinquante millions taxi laa wàccee kenn ku ci nekk den lay garder te man maa ngi fii taxaw su ma ni doon dóor yéen seen micro yi ñu ngi koy dóor gis ngeen ko gaañ ngeen ko loolu ngeen ci mën atte sa du ngeen ko def pour bëgg visibilité bi donc soo demee foofu ba tollu foofu dafay baax nag nga xam sa bopp hmm? xam sa bopp bu baax xam looy wax xam looy def surtout réew moo xam ne bés ba ci boole mais bu wàccee amoo fi mbokk dëkkoo fi amoo fi doole jege woo nguur ah xam sa bopp dafay jot yu gars yi naan damaa màgg ci serve <laughs> ma yoon ci politique yëgu ma ko sax gisoo suma kanam gi ni mu diisee taxin bu fanaan la meloon léegi mu ngi mel ni maa bañ mu ngi mel ni maa bañ loolu léegi laa yeew ñëw ci Mame Matar yëgaguma projet donc ñu la euh, ak yow la nga dem ziar sa donc ñu dem euh, voilà direct <laughs> Upstream International Building Material Company LTD di compagnie bo xamni ña nga nek Chine ak États-Unis Waïd it am ñu warehouse manam salle d'exposition Fitchin ci Ndakaaru cité Supreme suñu spécialité n'ak moy seconde œuvre manam nga tabax sa kër ba war indi matériel yépp lépp lo soxla ci aduna bi ñu indi loco fi ci footballeur yi yéen homme d'affaires yi yéen sénégalais yi nekk bitim réew te bëgg tabax ci qualité ndax nag xàmmee ngeen qualité bu baax baax dañu lay indi lépp loo xam ni moom nga bëgg yow fa nga toog ngay toog ñu yónnee la suñuy catalogue nga commander li nga bëgg ñu defal la ko ci conteneur livrer la ko nga teg sa seconde œuvre sa kër nekk qualité dëgg dëgg dëgg moo xam carreau moo xam sanitaire moo xam luminaire moo xam jacuzzi wala ay porte blindée porte sécurité lépp loo xam ne da seconde œuvre yéen commerçant yi tamit bu ngeen soxlaa ay ventilateur en gros dañu leen koy livrer weer wu jot am nañu conteneur yi jóge Chine ñëw Ndakaaru suñu équipe dédiée ñoy topoto déclaration yeeg yépp yeen dal amuleen lu dul ñëw jël seeni bagage woo leen ñu ci numéro yi suñu warehouse fi ci Ndakaaru ci cité Supreme amna whatsapp ci 76 840 53 14 wala nga ñew xol li la intéressé sénégalais yi nek États-Unis ak ci diaspora bi yépp mën ngeen wo Malik ci whatsapp ci numéro am ca New York 718 530 2383 wala nga dugg suñu website www.upstreamibm.com bu ngeen nekkee États-Unis mën ngeen fayee États-Unis bu ngeen nekkee Europe tamit mën ngeen a fayee Europe